Chers amis téléspectateurs de la 2STV, merci et bienvenue dans l'épisode 9 de Maternity by Me. C'est une bière émission préférée matin bonheur donc tey nag ñu nar a ñëw daal di amaat waxtaan bu am solo jëmale ko nag ci euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo juddu bees donc nouveau né yi tey nag euh, gannaaw bu ma leen waxee woon ni que dinaa ñëw ci technique yi nga xamante ni bu fekkee nii li ma leen expliqué woon bële passé ngir xale bi nekk ci condition yu baax ngir nelaw euh, dinaa ñëw ci yeneen ay technique yoo xamante ni day permettre rek xale bi su nakaree deret guddi gi surtout ngeen mën ko apaiser donc technique yooyu nag bi ci njëkk moom mooy emmaillotage donc emmaillotage nag nekk na loo xamante ni c'est très important gannaaw ay siècles yoo xamante ni euh, jigéen ñi utiliser nañ ko dans le monde ci yenn ci ay culture yu bëri emmaillotage dafay ñëw euh, dafa nekk loo xamante ne juste pour vous dire que du lu yees lu yàgg la waaye nag jamono ji dafa nekk nag loo xamante ni gannaaw bi ñu ci génnee ay livre daal di koy daal di jàngat bu baax gis nañ ni que ni am na ay njëriñ yu bëri yoo xamante ne am na ko ci xale yi ndaxte ñu fàttali rek ni euh, xale yi en général à 30 pour cent dinañu am li nga xamante ni moom ay colique ay méttitu biir yoo xamante ne da leen di dal euh, c'est très normal nag lu normal parce que seen butit yi dafay daal boobu boobu yëpp dafay daal de nekk loo xamante ni am na ay xale euh, yoo xamante ni daf leen ni andil ay métitu biir et surtout que ni euh, xale bi dafa juddu ci euh, benn contexte donc dafa nekkoon ci euh, biiru yaayam léegi nag dafay génn nekk si suñu suñu environnement donc transition boobu également day tax ay xale yu bëri dañuy nakari deret du ñu daal di adapté wu bu baax moo tax nag emmaillotage ci njëkk dina tax li nga xamante ni moom mooy transition boobu xale bi gën a rassuré wu ndaxte buñ ko dugalee ci li nga xamante ni moom mooy sër bi jëm ci li nga xamante ni moom lañ koy enveloppé ngir amal boobee technique dina rassuré wu bu baax ndax dafay jëlaat position bi nga xamante ne moom la nekke woon ci biiru yaayam dina ko xaw a serré tuuti donc loolu da koy daal di calmer bu baax ay études montré na ko et puis surtout ay références yoo xamante ni ci ay livres la réflexes moraux yi nga xamante ni bébé yi dañ koy am bu ñu nekkee ay nouveau-né donc réflexes moraux yooyu nag moom mooy euh, tiit bi nga xamante ni xale yi dañ koy jékki-jékki rek tiit daal day tëb donc mooy sursaut yooyu nga xamante ni bébé yi dañ koy am souvent suñuy nelaw guddi gi bu leen arrivé dañuy daal di yuuxu euh, di jooy jooy yu metti donc da di tiital donc loolu nag euh, boo defee emmaillotage bi dina ko wàññi bu baax a baax te su ko wàññee dina peut-être euh, tax xale bi daal day nelaw euh, si guddi gi. donc amouettage nag ngir nga réaliser ko da ngay daal day soxla li nga xamante ni moom mooy euh, lange donc lange nag dafa nekk ab tissu boo xamante ni c'est à base souvent de mousseline coton wala li nga xamante ni moom mooy jersey en général dañ koy utiliser mais li ci gën moom mooy matière bii nii ma leen di won donc dinaa leen ko won mu gën a leer si yéen donc voilà ngeen am ko en en mode double donc. mu daal di yaatu nii donc pour nga def emmaillotage nag dañ koy def ci euh, surface bu plat donc euh, ngeen daal di jël mousseline gaz bi daal di koy plier ba mu am forme rectangle donc euh, man plier naa ko donc di ngeen am genre rectangle bu mel nii donc li ngeen di def mooy que ni que da ngeen jël xale bi ngeen daal di koy placer euh, ci euh, li nga xamante ni moom nga plier en forme de triangle wala losange lay gën a joxe bu ñuy wax exactement forme bi donc nga jël xale bi daal di koy euh, yëkkati daal di koy teg ci biir boobee forme losange mooy tissu bi ngeen assuré wu que ni xale bi épaule yi tissu bi ci épaule yi lay daal yam yem ñaareelu étape bi da ngeen jël loxo bi ndeyjoor bi daal di koy indi ci kanam kanamam donc ba mu yemb ci dënn bi ngeen daal di jël euh, partie droite bi également mooy ndeyjooru li nga xamante ni moom mooy tissu bi daal di koy daal di muur ci kanam bi ak loxo bi fi ñu ko teg rek daal di koy wërale ci ginnaaw ba mu yegg ci ndigg bi nga daal di assuré wu aussi daal di jël loxo bi may ko li nga xamante ni moom mooy euh, liberté mu def ay mouvement donc étape bi mujj moom mooy euh, nga defaat même mouvement yi waaye ak loxo càmmoñ bi ko loxo càmmoñ bi da ngay jël daal di koy placé waat tamit ci li nga xamante ni moom mooy dënn bi daal di koy muur ci côté càmmoñ bi daal di koy wërale également ci euh, ginnaaw bi donc euh, je que image yi ça vous explique très bien li ma bëgg ngeen ngeen jàng. donc loolu moo nekkoon technique en maillotage bi ma leen bëggoon daal di won tey euh, donc ñu daal dee nag defaat beneen technique boo xamante ne dina tax xale yi daal di rassuré yu guddi gi moom moo jëm ci wàllum portage donc loolu di leen ci ñëw incha allah mardi prochain. merci à tous d'avoir suivi merci à Astou et très bon